merci beaucoup alors donc dañuy enchaîner affaire l'affaire Lat Diop Salif ñu ngi woon ci joxe nga dernière information yaa ngi wax ni dañu prolonger la garde à vue de 48 alors euh, mbir mi dañ ci tudd lu jëm ci wàllum ay woon exhibit rek d'abord nga présenté ñu loolu kuréel googu noonu mooy la pourquoi il s'agit euh, exactement nga Pape dossier bi yàgg na ci justice mm-hmm. dossier bi avant ñuy arrêté Lat Diop mm-hmm. nekkoon na en justice quoi euh, en septembre 2023 kuñ mm-hmm. ci arrêté woon dossier bi yàgg na oui am na ku ñu ci arrêté woon septembre 2023 dossier bi même avant régime bi di jeex. Mhm. régime bi ñoom Macky bi découvrir woon nañ fa ay mais c' trop tard. Mhm. léegi nag affaire yooyu parce que yàgg nañ ko yore mais bëgguñu woon d' habitude ñun au niveau de Walf Quotidien duñ bëgg di wax ay ci ay waxu nit quoi. Mhm. par mesure de <laughs> dañuy xawee rek ah non c' est nga kii citation yi dafa garaaw ci moom xam na. Walf Quotidien benn affaire heure bu ndaw. dañ lay attaqué quoi. Mm-hmm. moo tax lu gën bëri dañuy raté ay information gars yaakaar ne euh, ratage la alors que du ratage quoi. ok ok voilà deuxième man suivre naa ko depuis 2023. ba léegi. léegi lu ci bees loo xamante ne mun naa la ko wax mooy ki ni affaire. ci wàllu woon Xbet. waaw ci woon Xbet. Mm-hmm. mooy le Mohamed Dieng la. Mm-hmm. nekkul directeur général wu woon Xbet. waaw parce que ci information yu génn yëpp ñu ngi koy présenté comme le patron de woon Xbet PDG woon Xbet. voilà moom nekkul PDG de One Xbet mhm. Ibrahima Dieng dafa yoroon benn société bu tuddoon online service non avant online service dafa amoon beneen euh, société bu tuddoon euh, euh, c'est comment encore bet online bet online waaw ah, sous-traitance boobu noonu moo ameloon fisc état du Sénégal mhm. ci affaire kii bi mu tëj léegi Russie xam nga xbet one one xbet Russie ñoo ko moom mais boo déggee gars yi di la naan. Euh, naar bi waaw naar bi. c' est parce que la société est basée à Dubaï. Dubaï. mais ay Russes naar yi moomuñu ko. léegi nag Russie pays bu ñu ñëw dañuy ut benn représentant une société représentante boo xamante ne moom mooy demander agrément au niveau de la LONASE. léegi le gars Mohamed Dieng moom yàgg na Russie il a des relations ndaxte jabar ji Russe la. yal na ko yàlla yërëm décédé na. Mhm. bu mu déggee éco yi te que One Xbet ñoo ngi bëgg a ñëw Sénégal pour installé wu mu profité wu ci loolu changé ni euh, kii bi déclaré faillite mm-hmm. euh, bet online bi mm-hmm. ndaxte dafa yore loon mun dinañ ñëwaat ci montant yi mu yore loon fisc bu mu yore loon fisc kii bi mu monté euh, service online mm-hmm. service online bi moo tombeek Euh, le directeur laa nekk directeur u kii euh, nu mu tuddee saa waa ji Lat Diop. nekk directeur u LONASE LONASE mhm. ndaxte bet online mu ngi ko déclaré fay fin euh, des fin fin kii nii 2021 maanaam décembre 2021 mu créé en même temps service online mhm. ci même mois bi mais service online mu ngi commencé ses activités en 2000 22. te service online moom ci lan lay yëngu. service online ci Paris Paris en ligne. <coughs> ok waaw léegi nag ñële mooy Russie bu ñu ñëwee ñu kii ko moom comme moom il a une société bu boo xamante ne kii na te il a des avec euh, les Russes jabar ji ak yenn euh, frères jabar yi ak affaire yoonu mhm. ñu contacté ko moom mu nekk représentant wu 1xBet au Sénégal. léegi moom mooy jëflante ak ay ak LONASE. Mhm. léegi mu am agrément yi. comme LONASE aussi day joxe agrément dañuy soxla. nga am ce qu'on benn kii nii benn plateforme. Mhm. comme c'est société de paris en ligne. Mhm. dañuy am benn plateforme buy permettre à l'ONAS muy am visibilité ci parieurs yi ci nombre de parieurs yi ak euh, le montant généré mhm. cette même plateforme mooy permetre à la DGID mu a aussi imposer maanaam def impôt yi di préciser également que ci plateforme boobu noonu nga xam ne Lonase dina am euh, idée ci nombre de parieurs yi foofu lay mën a xam ay commission am naka la koy. taxé naka naka lay amee voilà commission yi par xam nga pourcentage la. maanaam léegi la au lieu léegi euh, am nga trois parts lay nekk. Mhm. Lonase. Mhm. moom la société représentante de kii ni ak euh, les Russes. Mhm. commission bi ku nekk dafay am commission. mais ñële ñooy dugal xaalis bi chaque semaine ci information yi ma dégg dañ doon dugal minimum cent millions. pour loolu la parieurs yi di partager ci loolu la ñuy amee dividende yi pour mun ko départager quoi. ñoom ñoom ñetti ñooñu noonu. Mhm. léegi on continue. voilà léegi léegi donc le problème se à niveau parce que boo xoolee. Mhm. détournement de deniers publics bokk na ci li koy tuumaal blanchiment de mhm. acteurs. loolu dans ce dossier le délit de détournement de deniers publics. voilà léegi. waaw parce que boo xoolee. no léegi plateforme boobu ñu tegoon. pour LONASE di ci am visibilité. est-ce que réellement nombre de paliers yi doon dugg yëpp. LONASE gis. Euh, voilà léegi am nga buñ ko créé ba pare. Mhm. plateforme bi était la ñu créé ko plateforme bi ci la Lonase di am visibilité moom en personne mu am visibilité DG di am visibilité. Mhm. le Dieng la euh, Mouhamed Dieng dem recruter ji contacter ak beneen société un ingénieur en informatique kooku développé ko benn logiciel. Mhm. et euh, société boobu moom mu ngi tudd Universal Payment. c' est un certain i i Loum moo ko moom. ñoom ñëpp ñu ngi dëkk Guédiawaye. kooku bu mu créer beneen plateforme bi c'est une plateforme écran maanaam euh, chiffre normal buy jaar ci plateforme bu normal bi nekkul moom mooy affiché wu ci plateforme écran bi quoi ci beneen logiciel bi supposons ñu am cent parieurs yu jàll par jour plateforme bi ci suuf day day affiché cent parieurs mais plateforme bu ñu créé mooy logiciel bi ñu ñu jox logiciel bi mhm. boobu 40 moo ci affiché ok donc sur 100 clients di dugg LONASE moom 40 rek. 40 lay gis logiciel bi ñu ko jox. impôt domaine. 40 lay gis. léegi si sur la base de ces 40 la ci la impôt euh, DGID di leen taxé. Hmm. sur la base de ces 40 pour cent là ci la LONASE di am. léegi 60 60 yi lay nagaay parce que day nax léegi nag 60 yi ci suuf mooy hmm. problème bi léegi bu ñu defee kii bi 40 yi. c'est là où le délit de détournement est caractérisé. Ah. léegi bu ñu defee kii bi bon xaw ma nag euh, Lat boobu du ma activité nag nan la ci mën a kii yeeg affaire yooyu noonu mhm. léegi bu ñu ko defee léegi 60 pour cent yooyu noonu mhm. xaalis bi jaar ci suuf mhm. boobu la la jeen di récupérer nekkul xaalis boo xamante ne dañ koy jaarale ci banque c'est de l'argent liquide moom lay séddoo moom d'après les informations que nous avons reçues moom lay séddoo moom le directeur ak euh, euh, non non le Mohamed Dieng borom kii bi ak i Loum ak Lat Diop montant boobu noonu la ñuy séddoo léegi montant boobu aussi c'est c'est en pour. non mais pour pour pour pour waa pour. que le directeur de l'ONAS ah seddu ci day fekk mu découvrir ko ba pare. non non il il avait il avait il compris seulement que ne moom il a certainement il a été largué mais il l'avait compris c'était un consentement parce que ñoom ñëpp géejoo lañ dëkk. Hmm. loolu dañ ko waxtaan <laughs> <laughs> dañ ko waxtaan. dañ ko waxtaan bon bëgguma ndaxte même le frère là affaire yi. donc xaar xaar may ko may ko mu daane. dossier bi ci lañ placé nit sous mandat de dépôt. kooku def na plus de six mois ou sept mois. kookaan la. benn nit ci dossier bi. ah ok benn. avant directeur mi ngi def investigation ci dossier bi. Mhm. moo tax xamoon naa toutes les informations yi ci yi ci nekkoon léegi bu ñu demee. Mhm. supposons que ne 60 pour cent yi nekk ci suuf. Mhm. mu généré benn montant 15 euh, pour cent. ñu war ko seddoo ñoom trois. Euh, mooy Mohamed Dieng. moom moo représenté euh, One XBet. i Loum. mooy ki nga xam ne moom mooy développé logiciel écran bi. Mm-hmm. ñu war a seddoo cinq euh, cinq cinq quoi. ku nekk am cinq millions cinq millions. Mm-hmm. léegi ñoom au lieu que ñoom ñuy am cinq millions dañuy de ñoom ñaar dañuy am au moins dix huit pour cent yi. Mm-hmm. bu dee vingt pour cent deux pour cent yi ñu jokkoo ko mais c'est en l'argent liquide. <coughs> kon <coughs> kon léegi léegi victime bi. c' est l' du Sénégal. l' état du qui en perd quoi moom moo ci perd mooy montant bi waroon a nga parce que LONAS la du Sénégal qui perd. non c' l' état du Sénégal rek parce que LONAS ci ñu taxé du ñu taxé euh, normalement maanaam kii transaction yi. même DGID du ñu mën a taxé montant normal bi. deuxièmement du ñu mën a aussi LONAS du mën a am. Euh, véritable commission yu mënoon a am. Mhm. maanaam fu mu waroon a am cent franc. 40 mhm. pour cent non dafa am 40 pour cent ndaxte 40 pour cent dañ koy séddoo à 3. kon kon li ñu doon wax kaaw corruption kon li ñu doon wax corruption corruption bi mooy. Mhm. corruption bi li ko rétablir mooy que ni c'est ce la. moo doon récupérer xaalis bi. récupérer xaalis bi nga xamante ne moom moom moom la 60 pour cent yi généré mu partage ko xaalis boobu au lieu mu doon jaar ci banque ci circuit normal. c'est de l'argent cash. Mhm. lay jox jël jox kële moom mu jël léegi nag leneen mu yóbbul ko directeur bi mhm. mais directeur bi moo ci gënoon a ndaw paar mhm. directeur moom loolu mooy matérialiser aussi le blanchiment de justement foofu laa doon bëgg ñëw parce que le ah. logiciel bi ñu jox LONASE quarante parieurs rek lay lay wane LONASE foofu lay prélever ay commission am DGID foofu lay taxé ay kiiwam léegi yeneen soixante yi nga xamante loolu lañ doon séddoo ci suuf léegi loolu mooy caractériser le délit de détournement léegi blanchiment bi nag parce que blanchiment ça suppose xaalis bu jóge fa lewul blanchiment bi nga xam ni. bokk na ci tuuma yi ñu teg ci kawam. léegi blan blanchiment bi mooy que ni ñoom. Mhm. montant yooyu noonu ñu doon gagné ñun d' après les investigations que nous avons xam nga kooku yàgg nañ ko topp yàgg nañ topp. Mhm. Mhm. xamuñu nag directeur bi. directeur dégg nañ ci ay këram dégg nañ ci ay montants yu bëree bëree bëri même vente matériel kii yeek affaire yooyu yëpp. mais xaalisu cash dañ doon jëflanteel te kii bi. coffre fort bu ñu doon dugal xaalis bi mu ngi ci benn appartement dinaa ñëw ci appartement yooyu noonu ici au Sénégal. Mhm. xam nga appartement bu rëy la un mètre cinquante la. Euh, loolu xaalis boobu moo doon servir moo leen doon permettre ñu jënd ay kii nii euh, euh, kii comment on encore ñu investir ci achat d'appartement ici à Dakar et dans la sous-région. Mhm. ay appartement ay immeubles. Mhm. beneen bi ay terrain ay véhicules. ak ay construction yeneen di immeuble yoo xamante ne ndaxte dañ demoon ba créer des société société gestion immobilière société de construction am na benn société boo xam ne mu ngi tudd Layus. Mhm. c'est cette société là qui gérait tout le patrimoine immobilier de Mohamed Dieng. Mm mais euh, à préciser également que ne euh, one xbet mhm. ñoom laale wu ñu ci affaire bi. ñoom ñoo xam noonu mu demee. waaw ndaxte one xbet boo xoolee ñoom ñooy sponsorisé presque les les événements sportifs là. Mhm. ndaxte dans le milieu sportif. duñu nangu benn entreprise boo xamante ne dañ koy jiñoonde victime la waaw non moom mais ñoom yëguñu quoi waaw victime la mais victime la effectivement mais ñoom ñooy ñoom ñooy sponsoriser les les événements sportifs euh, mondiaux ko te bokkut ak également ak premier bet mooy le franc CFA bu am problème fiscal ak l' état du Sénégal. te mu doon daw ñu jàpp ko. bokkul bokkul waaw bokkul beneen affaire la. mais boobu beneen dossier la. c'est que bett yee daje quoi. bett yee daje waaw mais moom it dafa ñëw dafay ñëwoon Sénégal installé wu ci ndax ci loolu ndax affaire bi dafa dox quoi. effectivement léegi ci loolu lañ doon def di ci investir ci immeuble immeuble. ay véhicules ay kii léegi léegi léegi voilà léegi biens yi ñuy trouvé est-ce que d'abord trouvé nañu ay biens ak ensuite kan lañ ko attribué kan moo ko moom. biens yi ñu ñu man biens yi ma def euh, recherche. ma dama yàgg ci depuis sept ans ba léegi. bien yu waa ji Mohamed Dieng ki ñu ne dafa nekk en fuite yu mu am yëpp man am naa ko c'est les documents. Mohamed Dieng moo nekk en fuite. oui il n'est pas là. il n'est pas là ah. ma déggoon ñu ni. moom bu ñu ko entendre bon déggoon naa ñu ne dañu ñëwaat mais je ne pense mu ñëwaat. waaw et moom dem na génn na génn na génn na sa kii. parce que en matière de corruption aussi bien le corrupteur que le corrompu ñoom ñaar ñëpp la ñu war a. mais mais corruption corruption mënu fa nekk. Hmm. foofu moom corruption amu fa. foofu moom association de malfaiteurs. non moom dafa ne. Hmm. non avant moom bon moom dafa ne da doon corrompre le directeur. 5 milliards moom remettre na directeur bi 5 milliards. en liquide moom Ibrahima Dieng moo wax loolu. waaw loolu tuuma la quoi. moo wax loolu enquête loolu la quoi. te effectivement loolu am na daan nañ séddoo de l' argent liquide ndaxte ñoom xaalis bi normalement ci trois banques la doon war a jaar. Mhm. bon bugguma tudd turu banque yooyu noonu xam naa turu banque yëpp ñetti banque la mais banque yooyu yëpp transaction yi ñu ci doon def musul weesu 3 millions ou 4 millions par banque et par mois xaalis bi yëpp ci ci dans le monde bi lañ ko doon defee ak affaire yooyu te ay ay ay kii. Mhm. voilà léegi ci biens yooyu noonu mooy biens yu ñu wooyee bien wu kii comment on l' appelle encore. Euh, bien malaki Mohamed Dieng. mën nañ ci compter ci xaalis boobu noonu. Mhm. jëndoon na ci xam nga matériel APR. parti kii bi. Macky Sall bi dañu yoroon benn sonorisation sonorisation bi Lat jóg moo ko jëndoon jaayaat ko kii bi waa APR. ñaata am ah, matériel boobu da ko jëndaat moom liquide du nekkul ay chèque wala virement deux cent cinquante millions. la ko jëndee woon la jëndee woon dem naa ba ci magasin buñ ko gardé woon. Mhm. bu demee ba régime bi di waaja a daanu ci lañ ko jëlee waat foofu yóbbu ko feneen. ok matériel ba léegi xam naa ku ñu ko dénkoon xam naa magasin bu mu nekkoon également. incha allah mm. mais yow mbaa yaa ngi wax enquêteurs yi. non non non kon <laughs> mën nañ laa woo comme témoin. mais nag mais nag da nga war a wax ak enquêteurs yi <coughs> pour être un bon républicain. non non le journaliste est un républicain. bu ko gars yi wooyee pour apporter son concours. jaru ñu lay xaar jaru ñu lay euh, woo jaru ñu lay ñor. yow parce que Lat Diop bi comme ni nga ko waxee léegi day soog a kalaate mais moom depuis un an mi ngi ciy def ay investigations. donc voilà le résultat de ces investigations. ci li nga xam ne moom mooy dossier bi. sëñ bi tur bi naka la ah? sax. Salif Salif kon man d'après li ma comprendre c'est-à-dire que ni kon affaire Lat Diop bi c'était bien avant le le pouvoir bi di ñëw di doog a installé mhm. que boo xoolee sénégalais yi ñu ci bëri am na si ñoo xamante ne ñi nga xamante dañoo contre régime dañuy tourné ne dañuy comme ñii dañu daanu dañu leen di topp di leen sonal te boo xoolee dossier bi kon instruiroon nañ ko depuis bi fi président Macky Sall nekkee. depuis septembre donc kon ça veut dire que ne justice mooy nekk di def liggéeyam mooy continuer di def liggéeyam. dossier bi ma la bu régime bi régime bi bu daanu wutoon régime bële bu daanu wutoon. Mhm. da doon dégg coow li. Mhm. parce que dama ne ba ci arrêté woon boobu mu ngi ci biir kii bi gars yi jégoon nañu mais kenn affaire dañ ko verrouillé woon quoi man le gars daan nañ déggante mais man aussi sincèrement parfois am na jotuñu yu bëri dañ may woo. Mhm. mais bon bu ñu ma woowee xam rek comme. du ma mën a am waaw du ma mën vérifier carrément que kii lu mu am <coughs> mais temps yooyu yëpp man maa ngi ci woon depuis septembre. 2023 loolu moom man leer na man di déggante ak moom il faut donner les informations nag à qui de droit. Eh, non <laughs> non lii nangu woo ko bind sax. non yi am nañ <laughs> <laughs> ko non ñoom enquêteurs yi enquêteurs yi ñoom li ñu am sax am na loo xam te ne am nañ ko sax te yow amoo ko moo tax tey ñu waree par exemple di xarañteefu sunu enquêteurs yi mm-hmm. muy la police wala gendarmerie cest à dikk ñu gën leen a dooleel. Mhm. c'est que Sénégal en fait dañu am tendance su par exemple di euh, wax suñu police wala suñu gendarmerie loo xamante ne cest à lu metti lay nekk man du ma fonctionner noonu police wala gendarmerie dañu nekk ñoo xamante ne dañ leen a war a dooleel gën leen a jox par exemple force boo xamante ne gën leen a wóolu rawatina nag suñu justice. Mhm. parce que tey lu am rek ñu jékki-jékki jël ko par exemple bëgg ko tekki ci ndodd suñu politiciens yi. am na ci politiciens yoo xamante ne xëy na mën nañu def mais du ñëpp aussi ñooy am. c'est comme des fois nga dégg ñu xas benn journaliste alors que journaliste yëpp yamuñu am ci ñoo xam te ñu ngi def seen liggéey correctement donc lii dafa nekk loo xamante ne dossier boo xam xamante ni par exemple mu ngi ci yoon donc man li ma ciy wax rek mooy Lat Diop dafa bokkoon ci ancien régime bi doon gérer ay deniers publics aujourd'hui c'est le temps des comptes donc li may ciy wax man damay bàyyi justice def liggéeyam donc bu ñu demee ba ci kanam dinañ xam fa dëgg féetee tey là jusqu'à présent jusqu'à présent man dama koy jox présomption d'innocence parce que jugement amagul dara amagul te même bu jugement amee sax ñu condamné la première instance il y a de recours ba jugement bi définitif par exemple bu boobaa si ngay mën a xam ndax diw moo def wala deful mais actuellement nii mënoo jël nit topp ko ne moo def wala deful mais ni ñu jël loo xam te ne bañ ko jël di ko politiser comme là actuellement ñu ngi jëm ci élection législative gars yi jël song pouvoir di leen sànni xeer waaw ñu ngi nii di instrumentaliser justice di jël nit ñi di tëj alors que dossier boo xam te la commencé nañ ko depuis ñii di doog a yegg si kon lu leen waaye wax tooñ leen donc nañu bàyyi justice def seen liggéey parce que enquêtes yi aussi bu fekkente ne dañ koy jël di ko teg ci table ji di ko génne bu boobaa aussi mën na yàq piste enquêteurs yi mm-hmm. te enquête baaxewul noonu nañu bàyyi enquêteurs yi ñu def seen liggéey ku ne xam ne ni enquête Sénégal les policiers wala les gendarmeries qui sont ay nit ñu xarañ lañ. mais mais avocat Lat Diop avocat Lat Diop réagir na nee na aucun rapport d'audit naa épinglé. loolu après si après lañ koy xam. xam nga loolu juge bee ko yor. juge bi moo yor dossier bi. moo ko xam juge bi li mu ci xam ñun xamuñu ko. donc loolu nañu bàyyi justice def liggéeyam. dafa am benn boo xam ne il faut ñu lever ko. la police day incriminé. mënoon nañu bàyyi yeggali kii pare après nga dëgg day coupé. le magistrat day inculpé. Mhm. entre l' et l' incrimination y a une différence. voilà Pape. waaw loolu nag après dinañ ci ñëw. Mhm. gën ko leeral pour que ñëpp xam lan mooy incrimination. parce que des fois nga gis police incriminer visé benn infraction. Mhm. incriminer la ci loolu. nga dem ñu discal di dindi fee yooyu la inculpé la pour beneen fee. boo xam ne c' est similaire. mais boo ñëwee tamit ba jugement. nga ñëw ñu disqualifier fee yooyu yëpp indi la beneen fee. voilà looloo tax ñu naan la la la loi humaine elle est faite pour être voilà. contournée aussi bien dans son interprétation que application. pour ne pas dire violée ah, kii lu mu wax. <laughs> waaw lu mu wax effectivement. Ah, Diouf euh, maître El aussi lu mu wax. nekkul rapport non du maître c'est monsieur Diouf. waaw non non yow maître El Hadj ah, avocat El Hadj lu mu wax effectivement amul benn rapport. bu ne dañ koy moom El Hadj dañ ko cité. Mhm. waa ji moo ko cité ci Mohamed Dieng mi moo ko cité ci affaire bi mais nekkul rapport bu ñuy kii ak wala affaire yooyu noonu voilà léegi deuxième commencé woon nañ ci jëndum deux cent cinquante millions wu matériel sunu affaire mhm. Mhm. Mohamed Dieng moo ko jënd cash ci ci Lat Diop la ko jëndee mhm. euh, beneen bi moom moom Mohamed Diop Mohamed Dieng ah waaw am na benn këru Saly bu 500 mètres 600 mètres carrés. li nekk enquêteur de. est-ce xam nga kii euh, nu ñu doon tudd Baye Fall bëgguma tudd turam quoi. Mhm. Baye Fall xam naa tur bi mooy Baye Fall. bi doon topp Ousmane Rijal ah. Mhm. Rijal bu doon tukku topp Ousmane Sonko. Copain Mola Copain Mola mooy. kooku moo yore kii Rijal. <laughs> kooku moo dëkk ci kër gi moo ko géreel euh, billet bi nekk euh, Saly mm-hmm. Pape xam na kii na mm-hmm. <laughs> mm-hmm. waaw mais bëgguma wax tur bi nan la tudd ak kiyam yëpp état beneen maison bi maanaam am na encore benn maison de deux hectares benn maison benn kër de deux boo xamante mu ngi dans les parages de l' institut Jambar ok l' moom moom Mohamed Dieng ak deux appartements benn duplex ak benn bu simple mooy Sacré Cœur mooy ci immeuble jomaay Diomaye euh, si Camara bi mooy cité Anta yi <laughs> xam l'un l'un des kila benn apartement bi benn appartement mu ngi ko jox benn colonel de des douanes. Mhm. kooku aussi xam naa tour bi. mu ngi ko jox wala mu ngi ko loué. da ko ko jox Mohamed Dieng ma ko jox sans location. Ah, waaw loolu daf ko abal daf ko ko abal. ak trois véhicules. daf ko abal ak trois véhicules kooku yor nañu tur bi <laughs> voilà da ko ko awal la ñuy wax ah, tur boobu mu fa dégg waaw <laughs> des véhicules de marque toujours ci bien wu Mohamed Dieng bi mhm. euh, coffre fort bi ma la doon wax mhm. booy un mètre cinquante bi dañu installé ko dans l'un des appartements ci cité mhm. Kër Diomaye si Camara bi quoi boobu boobu fa la ne fa lañ doon def xaalis bi ci lañ ko doon jëlee di ko investiraat côté Côte d'Ivoire ak yenn pays ci ay immeuble aussi également immeuble euh, ak appartement kese lañ ko doon lañ doon recycler xaalis bi quoi. Ah, ak benn appartement boo xamante ne. mu ngi nekk au troisième étage. immeuble boo xamante ne mu ngi fii nii soriwul IPG. Mhm. Sacré-Cœur waaw Sacré-Cœur IPG bi soriwul parage yooyu également boobu aussi yor nañ kii bi. wonoon naa fa document yi. Mhm. am na encore deux apartement yoo xamante ne ñu ngi cité Ataaya mooy Mixa. mixta mooy bu nekk côté kii mooy bii nii mooy après stade bi quoi yor na fa benn yor na fa aussi euh, deux appartements beneen appartement à Mermoz beneen aussi appartement à la cité Mbakiou Faye mooy bu nekk Mamel la Mamel wala Wakam waaw ci côté Mamel yi la Wakam waaw secteur boobu la mhm. am na beneen euh, appartement bu nekk au dixième étage mhm. Mamel mhm. boobu appartement la benn terrain de deux hectares. ci benn am na xaalis de. Euh, mu ngi nekk institut jàmbaar foofu la <coughs> érigé bon xam nga nee nañu otoom yi mu yor xajatul woon ci kër yi. terrain bu nekk euh, institut jàmbaar juste en face institut jàmbaar boo leen fa demee di ngeen fa fekk benn terrain boo xamante dañ ko aménagé pour location de véhicule. Mhm. te mu am ay bus am ay euh, véhicule de toute marque. Mhm. moom moo ko moom. la majeure partie bu ñu ne bu dee cent pour cent. Mhm. 60 euh, pour cent véhicules yëpp wala 80 pour cent véhicules yëpp oto mi moomal boppam la yooyu te ce sont des véhicules de marque. Hmm? Euh, beneen bi un autre voilà parmi tant d'autres am na am na parc automobile boo xamante ne mu ngi ko estimé à un plus d'un milliard. am na aussi un terrain waaw érigé en kii bon parmi tant d'autres léegi léegi léegi léegi li si jaaxal sénégalais mooy. Hmm. parce que biens yi nga fi tudd nii yëpp. d'après say recherches. ce sont des biens attribués à. Ibrahima Dieng. Mohamed Dieng Mohamed Dieng plutôt. à ah, son ah, waaw mais tout est vérifié est-ce que c'est vérifié c'est vérifié que tout est tout est à son kii kay depuis un an mi ngi def investigation ci dossier léegi li jaaxal Sénégalais mooy comment ça fait parce que actuellement. donc d'après li nga fi wax yëpp. d'accord nga ni Lat Diop seulement ne devrait pas se retrouver au banc des accusés. c'est ça nag corrupteur bi moo dugal un <coughs> présumé corrompu ndaxte moom moom il était en justice ak beneen waay le dossier en appel léegi ñu woote waat dossier boobu aussi c' était un montant de plus de 700 millions boo xamante ne moo ko opposé woon ak le gars a ki ñu placé sous mandat de dépôt jugé ko bàyyi ko. léegi est que mu ñoo ko bàyyi mu dem. non dañ ko dégg naa dañ ko bàyyi dañ ko reconvoqué waatoon. waaw ce que j'ai appris ñu ne moom génn na dëkk bi. ok mais mais dans cette présente procédure laa wax man. est-ce que Lat Diop seulement devrait se retrouver au banc des accusés d'après li récit bi li nga li nga kii non récit bi ma ne la gis nga naa ci ay bon turu ay ay autorités. bien sûr ci lii. cest moo tax par exemple comme li nga wax léegi. Mhm. parce que Lat Diop rek par exemple moom la ñu est-ce que aussi par exemple Lat Diop nekk par exemple amul leneen lu ko lié lu bokk ak lii parce que aussi il faut qu'on la vérité tamit. waaw mooy li ngay wax parce que kii li mu signifié si Mohamed Mohamed Dieng Mohamed Dieng mi Mohamed Dieng bu mënee dem ñu jàpp Lat Diop kese kon est-ce que amul leneen loo xamante ne moo ko ci lié. aussi moo am na ci part de responsabilité. kan moom Lat Diop bon présumé part de responsabilité. Mhm. ndaxte bu ñu la nee plateforme bi pour am dara. moom comment se fait mu accepté. voilà gars yi di ñëw di ko. jox ci suuf graisse ci suuf yenn montagne te xamul origine kii euh, comment on l' appelle encore. Mhm. origine source yooyu noonu lan provenance montagne yooyu noonu fan lañ. mais mais remise yooyu yëpp kaddu kaddu kaddu Dieng de. waaw kaddu Dieng waaw loolu la wax. c' est ça par contre celle de. mais man moom li ma jotte kooku. ñaar nit yu bëri yoo xamante ne fekkee nañu. Mhm. fu ñu leen di remettre. xaalis yi. mais Lat Diop il conteste. moom fekkee na bëri bëri na ay nit yoo xamante ne fekkee na ñoom fu ñuy joxalante xaalis. Hmm. man loolu leer na ma nañ. d'accord nga xam nga si. te beneen aspect doyen balaa ñu lii nga fi wax yëpp ça n'a rien à hmm. ak audit bi nga xamante ne. le successeur de Lat Diop. lancé woon na ko bi mu ñëwee Abdoulaye du du rabal yaakaar na moom tamit également ba mu ñëwee def na audit foofu noonu audit bi am na ay manquement boo xamante également desale desale moo tax dossier bi dina ku ci nekk ki la remplacé dina def point ci li nga xamante ni moom mhm. comme loxo affaire ngi loxo yoon. nañu bàyyi yoon doxal liggéeyam. justement parce que lu ci bëri. dañuy à peu di wax mais lu ci bëri li dossier bi li nekk ci biir yaa que les enquêteurs moo la mën a wax li ci nekk le PV. wala d' instruction. Mhm. ou bien le procureur ñoom la mën a wax li ci dossier bi. ñun nag dañu am tendance Sénégal dossier day nekk ñu jël ci lu ci wax ku ne di ci wax sa xalaat mais je pense que ne dossier boobu yaa la le procureur le juge d' instruction. wala les enquêteurs ñoo la mën a jox PV yi wax la li nekk ci biir. mais ñu ñëpp ku ci nekk sa xalaat rek ngay wax. ak li nga xamante ne moom ngay am akus néew mais bu dee la peut que ne le journaliste wala ñi nga xamante ne ñu wut des investigations yoo xamante par exemple 30 pour cent wala 40 pour cent donc lañ cee am. mais les 100 pour cent boo dem ci kaw rek nga ko mën a amee. mais man li ma jaaxal mooy Salif bu ma déggee li wax yëpp Dieng boobu noonu moo sax gën a taqalaat jóg. boo dégloo li mu wax da nga xam ne kooku sax moo gën a takk. waaw mi ngi noonu. moo tax ñuy wax moo tax moo war a utiliser présomption d'innocence rek. en tout état de cause Lat Diop est présumé innocent. exactement ba fi ñu toll nii wax ni àttee tuuma yi ñu koy toppee moo ko gi donc actuellement fi ñuy toog ñu waxee ni innocent la jusqu'à ce que tribunal di ko àttee di ko déclarer coupable. li ñu koy toppee moo tax à chaque fois dañuy jël ay précautions langagières par rapport ñu ngi ci te ce sont des dossiers yoo xam ne yàgg nañu. di nañ ci ñëwaat incha nañ ci ñëwaat. bu bu tudd de teg ko foofu rek. <laughs> yaa bëgg a bu ñu jàppee rek ñu ne moom Sénégal bu la bu la